bala ko am ci sallallahu alayhi wa sallam moom la ñu doon ci ñu doon ñu ko ci ci ci ci ci ci ci ci suñu suñu compétence yi ñu ngi doole ci ñoom ñu ngi def ko ndax ñu gën a wax ak yoo xam ne dinañ leen sas nekk ak kuy dëkk parce que ay personnes yi dafa am lu ñu taataan ci bëgg am am loo xam ne bu wér la waaye ñu sukkandiku ci autosource bi nga xam ne tey wax ñu koy ànd ñu soxla wala affaire bi am na ci lu la ñu toogee fii bu dul woon du ñu toog kon moom ba tey ñu ak ñu koy gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla ko mën ko jàpp ci ci ñu ko bëggee ci saxal ba ci ci teew ci la itam kon ñu ngi jéem waxtaan ci bàyyi ci kenn li nga xam ne moom la moom lañ fàgg tuuti ci ay xam-xam yoo xam ne mën nga aju ci moom jëlee ko ci mag ñi ànd ak néew na lool ci ne pare bu ñu koy seet day mel ni samp puso ci géej yëkkati puso ba topp puso ba xëy moom la ñuy wax waaye la des ci géej gi nag mooy nga képp koo xam ne yaa ngi déglu nga bëgg ci ay retraité nga jéggal ñu loolu xam ne ku yàlla dana jublu ci kon ñu ngi tàmbali ci <coughs> bàyyi dafa jàng dara ñu doon jàngee rek bu ñu jàngee mën ñun ñu ngi jàngee ci daara yi nekk ci loxoy mag ñi toog ci yoonu baar yi toog ci basan yi di jàng koy defee naa lañ koy defee dañ lay boole yëpp nga jël ci dara bu demee lay joxe dara nga ñaan nga su ci yàlla defee barke nga niru ko xam. ya Kiinassa meillä ei ole päihteitä, niin tuli leikerillä. Vaikka on, niin Suomi pääsee. Tuli tämän vähän. Vaikka on ollut sinne kutu. Se on sitä. Vaikka sitä. Nyt mä kuulokki sosiaalinen. Samaan lahti, nuo jutut tuntiin, näin tuon tuon, kun sanotaan, että on kuinka yhtä asiaa. léeg-léeg gis ñoo xam ne dañuy dem sax ba ci ba yàlla ñoo ko dara ñu ko def ñu ne gis naa kenn xam-xam ak yaatu waxtu yi waaye ñu ne suñu xel na la fekk na yes ñu ne ko ay laaj yu baax lañ ci laaj ak lañ ci moom jaay la baax ko woon ko jagu ma ko xoote woon mu waaye doomu ne boobu réew mi ñëw guñ ci ñu ñëw fekk si ko fii ci fekk si xool ñun ñu ko waral man ak Abdoulaye ca ñefeñ bàyyi seen bànda itam ci la bokkoon ci muusi woote boobu mu dalal ko ci Porokhane ñun ñëpp dafa nga xam bokkoon alxuraan ci foo xam ne këyit nekk fu woon daal wutoon alxuraan mu jàng ba wattu alxuraan bu rewaati wax si man ci jot ci ay maam yoo xam ne tuddkat yi dañu koy tudd dem ba ci Ribra nga xam ne benn naar la woon bu baax ko woon lii bi ñu sérif la woon ñëw ci réew mi loolu buñ foof tuuti lañ si wax ndax lu ñu leeral ay ci lañ ci waaye nag comme man su may dem te ñu ko gisoon ci bàyyi tamit nii ci domaan yoon bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag suñu xamoon yooyu ñu bind yi tam gis nañu am jéem a ñu ko wax ci loolu xibaay eh, buñ demee ba ci ridaam moom danañ ci tuuti lu gàtt pour ñes yi nga xam ne moom lay samp nii te lu nekk dana am sabab te taarix am na ci lu ay sab ñu ci lool waaye danañ dem ba mu jot xam eh, bon suñu teewee ci place bu nii tey ci li yaakaar ci wax tuuti rek masalan tey soxna soosu bi mu ñëwee ci réew mi bi damoon bi mu ñëwee ci réew mi dal ci kër góor boo xam ne ñoom njaay lay santoon soxna góor gi amee benn jigéen boo xam doom joo xam ne dafa amee tànk boo xam ne man ñu tànk yi dama xam dafay tëral ñu tànk yi xaale sëriñ bi ñu laaj ko ndax mën nga ko fayal nga ñu mën naa ko fay su ko bam ko fayee ba wér ñu ñaan ko ko ñu may ko ko yàlla defee mu am leen teg moom eh, doom suuf ci moom la ba muy dem ba su doogu université góor ba ñu ko tuddee Mouhamad Niass Mouhamad Niass ñoom nag xam ne ay nit yu ngóor la moom ndaare santam boobu góor lañ ko fiyoon sant yàlla mooy sant sax mu tudd mu tudd la ñu tuddee yow mi xama taxawaay góor ci ngeen ko tënk ngóor ngóor bu dee jigéen tam dafa am sutu góor dañ def benn bis mu war fas dama ñu ci xam bis boobu bu mën ci xam ko tur mu war fas ne dafay dem daal dox ci am bi waaye fas bi rëppatal loolu ci am benn bànqaas bu tiim rom bu tiim yoon bi mu ne seen bànqaas bi xam ne su ko moytoo sax mu ko moytoo waaye bu dafay niru ko rayal te itam loolu mu gaañ nopp ñu ko rayal léeg-léeg mu dàq fas yi rek fas bi jaar ci ron bant bi bànqaas bi dal ko ci bët yàq bët bi ñu ñëw nag ñu ko faj ci jamono boobu dañuy faj di muur moom ñu ñuy fajee moom te comme góor la doomu góor la bu ñëwul surtout bëriwul ñoom nit ñi ñoo koy waxal bu ko buñ ko buñ laajee bu leen laajee moom bët bi rek ñu ko njaay bët bi day nees ñu ngi ñu ngi tane daal ñu ngi ko wax noonu ba tam nees jooju ci olof nga xam ne moo indi sant boobu tey mondiale sanki waaye dañ koy neexal ci ñi ba ba mu mës tuuti léegi dañ koy ba ñëw te famille bi nekk famille bu yaa famille bu yaa danañ am benn tur boo xam ne ñu bëri danañ koy bokk léegi suñ ko bëggee jàkk ci biir famille boobu dañoo am samba jaay la mi nga xam ne moom la ba bi ñesoon te mu laax dañuy dem ba mu yàgg ñu xas fi nga xam moo ci xajoon yëpp ba mujj mu des mu daal mu rek mu daal muy muy muy samba jaay la ñas léegi waaye samba jaay la njaay la sant léegi nag bànqaas boobu ma xam ne moom moo jub samba moom nga xam ne tey moom la Reba Diouf ak ndaw soosu moo leen sant ñas ci réew mi ñu ci bànqaas boobu kon ci buur lañ continuer waaye maanaa gaaw na continuer ñu dugg ci diina lislaam di jàng di jàngale di faj nit ñi comme ci gën a gàttal na ci ñoo xam am xam ne tere nañ xalil du loolu parce que ci bàyyi lañ jëm Alaaji Abdoulaye moom nga xam ne mooy bàyyi Baay Ñas tuddee ko Ibrahima Ñas Alaaji Abdoulaye amoon na benn najaay bu ñuy wax Ibrahima mooy na ñu ne moom lañ ko tuddee euh, nijaay Alaaji Abdoulaye la moom la ma moom la Maba Jaxu faloon muy xaati ji xatte gannaaw bu mu ba ko demee la bàyyi xatti boobu euh, barxam nag ci yi nga xam ne ci turu Ibrahima la bokk barxam Ibrahim Ibraham loolu ci loxaay Ibrahima la comme Maam Alaaji jàngkat la dafa daan indi toujours baat yi nga xam ne dafay indi dafay delloo si bu sell ci lu jiitu moo tax mu indi lu bari lu jiitu ñu doon tuddee barxaam seeni la ji waaye moom bi mu doon si soog laajee tamit Ibrahima waaye bëri loxo def euh, ma ne bàyyi ngeen si ñun tey nga xam ne ne bàyyi taxi ji li ko indi ci loolu incha allahu ci kattanal yàlla ci mbaaxam alaaji ko jur soxna suñuy wax astu jàmpa mu ngi juddoo tay ba ñeseen ci ron guy loolu am na lu muy tegtale ndax nit toujours bu demee ba nga xam ne yàlla jox na xam-xam ak man-man wala mu jox ko da danañuy dellu ci gannaawam di wax taarixam lii la laala kon ku xamee njëriñ ni bàyyi su juddoo ci garab gu mel ni guy ci réew mi fii nga xam ne ñépp xam nañ ne guy am na soow xob yi am na lu muy jariñ yaram wi am na xànc dana tegtale ca xarafaan ne kii nii bu màggee dana nekk buy jariñ jaam yàlla yi faalan loolu am na itam tey ma seen guy gi ñu bari fekk nañ fi daanu na léegi sax euh, moomu nga xam ne moom la turam yu bari léegi ndax mbaaxam gi moo bari mu ngi jàngee ci baayam Alaaji Abdoulaye Niass jàng na alxuraan fin la bi mu amee ko dalal jàng mu am juróom-ñaari at wattu ko muy fukki at ak ñeent mu tare alxuraan bi riwaayati Wahshin an Naafi'in bi mu jàngee alxuraan ci juróom-ñaari at yooyu fekk juróom-ñaari at ñeent mu wattu bu rafet <coughs> dolli na ci benn at moo xam ne daf ko doon rafetal jàng xam-xam bi mu jàngee xam-xam yàlla may na ko ci loo xam ne néew na ku jàng am ko ndaxte ñaar fukki at ak benn ci la walif kon bi muy wattu alquran mu ngi ci fukki at ak ñeent ñu teg ci ñaata juróom-benni at du loolu lay doon wala juróom-ñaari at mu walif téere mboolem ñun ñuy jàng ne xam nañ ne nit ku jàng juróom-ñaari at di walif ay téere te keroog ba mu walifee téere bu njëkk bi ba ba muy dem di walif bu mujj bi seen diggante amul lu ñuy wax naan kii ku tàmbali moo ko doon bind kii ku mujj moo ko doon bind lépp boo yëpp benn la amul amul nihaaya kon yàlla moo ko jagleel loolu ci mbaaxam wax naa la ne wattu na alquran bi muy jàng alquran nag naka gon yi jàng alquran rek la amutoon dara benn jagle dem na ci daara ji dal na jàng am na xaluwa ñu ngi koy bindal mu ngi jàng mu ngi mokkal mu ngi tari baayam baykat la jàngalekat la yare ko ci diina la mu yàlla jàddulaañat bàyyi dafay dem ci tool yi moom barham moomu di taxan di wattu golo di bay di lekk lu naqari di def na ko gone taalibe yi di jël sémmiñam di dem ci xàll bi di def yooyu yépp def na ko bon jaar na fi nga xam ne fi la waroon a jaar ci yar yaram dem ci loolu dem ci loolu ba ñu bari ci nettali yi siiw na ne euh, daf doon wattu golo ci àll bi tool bi waaye ma ngay jàng nag te ñëpp xam nañ ne jàngkat yi nga xam ne dañuy wattu golo ci àll bi seen sëriñ daf leen di jox jukki wala seen bind na leen su ngeen demee ngeen jàng ko boo léegi nag yàlla xir na ko ci jàng muy jàng te am na sàmmkat yuy jàmm sàmm ci xàll boobu benn pël romb na ko muy jàng muy sàmm muy jàng muy sàmm ba ngoon jot muy jofal romb ko muy jàng dafa dikk ci moom ne ko gone gi la yow yaa bari wax ci suba ba ma fiy jaar yaa ngi yaa ngi soow rek ci ngoon itam bi ma fiy jaar ngi soow li ngay soow lan la loolu dafay tegtale ne moom lim doon nekk itteel na ko wattu mi itteel na ko waaye njàng mi itteel na ko mu boole ñaar ñëpp di ko yéenal kon kooku jaar na fi mu war a jaar ba am li ko yàlla jox ci yar bu baay bu baax bi nga xam ne moom la ko baayam yar baayam am na ay doom yu baay maanaam baayam jur na ay doom yu góor jur na ay doom yu jigéen ñëpp daf leen a tekki siraatul mustaqim yar leen suñ demee ba ci kanam tuuti su laajee loolu nañ ko indi moom baay moom nag ci koosi gii la doon war koosi gii ñuy gis ci boori Kaolack ci la nekkoon doon ci la doon wattoo golo ci la doon def loolu ba yàlla def alxuraan ci pare ma ne mu jàng ci baayam xam-xam bu rafet boo xam ne bi mu xam-xam bobu ci ñaar fi at ak ben ci la wolé séri bobu ñu wax roowul adab nga xam ne daf ci won talib bi naka lay xàndoo ak sëriñam lan mo war talib bi ci pass pass ci wax ci teggin ci jëf be njëkk ñariñ li nga xam ne moom la talib bi war jot ci sëriñ yàlla dimbale nako ci loolu def na téere boobu moom bàyyi maanaam moom barxam bi nga xamé ne itam magna ba jot samp kër def na nit ñi Euh, am na soxna takk na soxna ndaxte loolu sunna la ci diinal islaam yonentu moo ko digle sallallahu alayhi wa mu def ko ngir topp ndigal yi nga xam ne moom la yàlla santaane euh, samp kër di joxe dépense di xodd ay jabaram di yar ay doomam di leen jàngal alxuraan euh, di leen yar yar bu baax di jëf-jëf ju rafet ci seen kanam di wax wax yu rafet ci seen kanam ba ñoom ñépp ñu miin xam ne lii rek rek rek moom la ñu war a def ndax xamuñ leneen ndax ki leen di yar foofu la leen gaat yooyu la leen di wan ci jëfam yooyu la leen di wan ci waxam ba ci nga gis doomam yu baax yi alhamdulilah yàlla baaxal leen loonu te ki ci jiite tey di Alaaji Abdoulaye Niass mi nga xam ne euh, bu fekkoon ne duut ne ba baay rek moo moom jotaay bi kon ñu wax ci moom dara waaye lu mu ko moom moom nit mënta tàggal doom ak baayam wattu na alxuraan moom itam bi riwaayatu warsin an Naafi' jàng na ba am xam-xam ci jamono bii ñu toll gisuma ci réew mi ko fi raw te loolu sant yàlla la Euh, te loolu yépp yarabu baay yarab baay bu baax bi nga xam ne moo xew loolu moo ci amoon euh, ma ne baay moomu nag bi nga xamee ne jàng na xam-xam yàlla def mu am ko muy bind nekk fekk baayam ak diir rek baayam dal di dem baayam amoon na ci moom yaakaar lool baayam demee moom alaji Abdoulaye Niass bàyyi fi doom bu ñuy wax Mouhamad Niass Mouhamad Niass moomu gannaaw moo xuutu baayam léegi dañuy wax Mouhamad Khalifa Niass ndax dama doon Khalifa baayam nekk na fi gannaaw baayam juróom-ñaari at bàyyi topp na ko toppin gu rafet nekk ci loxoom yaru ci kanamam déggal ko nangul ko ba danaa la jox tegtal ci déggal ko ak nangul ko pour nga xam ne ku jub mooy def loolu Baye Khalifa léegi moom mag ci doomu Alaaji Abdoulaye Niass yi kenn réeréewut xam-xamu Baye Khalifa yaakaar naa ne ci li ma foog euh, ndax jant la bu nekk ci digg ba ci loolu kenn mën ci jël di ko tegtale Baye Khalifa moomu bàyyi nangul na ko façon yu nangu boo xam ne xàggoon na ci su nawet jotee bay xalifa jox ko ndigal mu dem koosi yóbbu taalibe yi nga xam ne bay xalifa moo leen waroon a jàngal daa leen jàngal ci noor bi te dañoo war a bay te Kaolack mënuñ cee bayee ñuy bayee ji koosi muy dem di leen jàngal moom baay ñuy bayal bay xalifa mu ànd ak ñoom di bayal xalifa loolu ku jub moo koy def diggal rakkam magam jooju ba nga xam ne su demee baat bi nga xam ne mooy kër gi moom kër gi moom daara ji eh, bay xalifa moo ko moom waaye gëstu bi moo koy jiite moo ci jàngale mooy ànd ak taalib yi di liggéeyal magam jooju nga xam ne moo taxaw ci palaasu baayam ki Alaaji Abdoulaye Niass loolu ñun ñëpp war nañ ci sant yàlla ndax dërs la boo xam ne suñ ci royee danañ nekk nit ñi jub ñoo xam ne dañuy toppante di déggoo di àndoo di dimbalante di fonk ñi nga xam ne ñoo nekk ci seen kanam ci suñ kanam bàyyi def na loolu eh, wax naa la fi jaar ci alxuraan jooju waaye danañ gaaw a dem ci samp daaraam ci jàngaleem ci yar jaam yàlla yi ndax su fekkee nit dañ laa laaj ci fi juddoo te mooy sa kilifa ni nga def bay wax e, juddug yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi te dañ ko bind noonu ngay def ba wax ci lii nga xam ne tey mooy sa kilifa te nekk yow li ci am farq rek mooy yonent bi mu demee sallallahu alayhi ba léegi bind kër yaa ngi bind jamono bii nag ci baay moom day bind na waaye li gën a bari ci nit ñi tagg nañ ko waaye mbind mi taxut mu demee noonu kon nag ñi nga foog ñi ñu foog ne xam nañ ci moom dara suñ mënta bind itam suñu waxee ndaxte le bindkat yi danañ sukkandiku ci wax yooyu mu nekk wax yu dëgër ñu jël ko bind ko boobu ëllëgee bu ndaw yi ñëwee te am xam-xam te am fatlu danañ bind loo xam ne keneen dana ci mën a sukkandiku incha allah moo tax ñu baxel wax loo xam ne dafay nekk lu wër loo xam ne bëgg pay bi ak bëgg a bi ak fonk xam ak bañ cee dugal dara nga xam ne luñ ci déggee ci ni dañ naan ci diw lañ ko déggee muy amaana ilmi yow te itam lépp loo ci xam ne itam lu ñu war a wax la danañ ko wax incha allah ci rafetal ko lépp loo ci ne itam dañ ci war a wattandiku danañ ci wattandiku su neexee yàlla ndax loolu la xam-xam laaj xam-xam dafay ànd ak tëggiin eh, bi bay xalifa demee nag ba nga xam ne baay dëgër na masalan bi bàyyi dëgëree gis na ni dafa war a samp daara dafa war a jàngale loolu bi nga koy defat dem naa dema dem ci loolu ba am benn benn taalibe li may wax ni ñi ñi ñi nekk ci daara xam nañ ko soo demee ci taalibe nekk ak sa mag wala nga nekk ak sa kilifa dana dem ba nga xam ne jàngale boobu ngay jàngale dana am ñu ñëw di topp su ci yow di topp su ci yow dana amit ñoo xam ne bu ñëwee ci yow direct la ñuy ñëw nga doon seen sëriñ kon mu ngi mel ni sëriñ maanaam taalibe taalibaatu la ci jàng mi nga leen di jàngal ci topp doy gi mu leen di doy xam-xam bi nga xam ne ci ngay mm, ci ngay wax ci la ñuy demee ba nga xam ne ñoom dañuy far ñëw nekk direct yow nekk sa taalibe su ko defee bu dimanche wala ba jotee mu ànd ak taalibe bay xalifa yi dem ci tool bay Mouhamed xalifa moomu di ko liggéeyal ñi àndoon ak moom te nga xam ne moom ci direct lañ ñëw ñu dem ci toolam di ko bayal loolu itam dara nekku ci ndax lu rafet la ndax yar bi mu yaru ak nangu gim nangu ci la ko yàlla mayee loolu léegi nag ñoom ñëpp ñu bokk nekk ci ñeseen ci kër Alaaji Abdoulaye Niass muy bàyyi Mouhamad Khalifa moomu ma leen wax ak Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu mi nga xam ne moom laa wax nii moom laa leen di wax nekk nañ ci benn pàkk ci ñeseen fii pàkk bi nag dem na ba nga xam ne fi mu ne xat ndaxte fu kenn nit doon dund moom Alaaji Abdoulaye Niass léegi mu di fa dund ak fukki doom yu góor ak juróom-ñeent ak seen taalibe xam nga pàkk bi dana xat wax dëgg yàlla leneen nag xeese na mooy xam-xamu sharia bi mu doon joxe yaroog doom ji mu doon joxe yarug taalibe gi mu doon joxe rafet ak jëflante gi mu doon def ci diggante moom magam yi ak rakkam yi bëgg a ci mbit mi nga xam ne ci la leen seen baay joxe woon dem na ba nga xam ne ci cëtëb yàlla nga xam ne dafay wax ne lu ko neex lay def moom yàlla am na lu mu ko jagleel mooy xam-xam bii nga xam ne tey li ëpp ci góor yàlla yi di ko dikkal ci lañ ko dikkalee mooy maarifatu billah xam-xam boobu bi ko ko yàlla joxee ba feeñ gi jot ba mu di ko xoote bi buñ gàmmoo ba bët set ci kanam bay xalifa nga xam ne xam ne bay xalifa moo doon gàmm uutu baayam gàmm yu neex bàyyi bokk ci ñi nga xam ne ñooy sikkar di way bi bët setee mu am ndigalal pay bu mag ba ne dafa war a oote ne jot na maqaama bi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Ahmad tey te itam maarifatu billaahi moom mooy ndab li képp koo xam ne bëgg ngaa xam yàlla na nga ñëw ci moom tey te ci kanam xalifa la ko doon waxee te loolu bu fekkoon doo dëgg ci moom nit ki nekkee kilifaam ak ni mu ko wegee ak ni mu amee xam-xam du ko waxee ci kanam bés boobu tey waaye boobu bés ba mu koy wax gisul lu mooy yàlla rek ku mel ni Aboubacarin al Musanna mooy Cheikh Serigne Baye Niass keroog yàlla dimbali na ko ci mbaaxam mooy ki ko njëkk njëkk njëkk a xuruj yoosab keroog bésab keroog boobu ci kanam seen mag jooju ci Baye Khalifa ci kanam mbooloo mi nga xam ne dañoo gàmmu soon kenn demagut ci bët set soosu nga xam ne ñëpp xeewu nañ ci nelaw yi ba julli fajar ba pare kooku moo dem njëkk koo gëm ne ko man soxla naa loolu ci ko tëbb keroog ci kattanal yàlla ba ba muy dem mëstat na ko bàyyi moomu ba dana am ay shahada yoo xam ne danañ leen ko wax bu fekkee ne waxtaan wi na ko ci kanam incha allah ma ne bàyyi nag ci li leen di wax noonu jël na nag léegi dellu na koo si nag nekkal boppam ci kattanal yàlla koo pàkk la boo xam ne ñépp ko seqoon képp koo xam ne rek sa bàyyi di El Hadj Abdoulaye Niass euh, maanaam moo la jur am nga sañ-sañu nekk fa waaye nag li olof jox nañ ñaari kuy duñ bokk mbalka am na koo xam ne bu sañcee ci barab keneen keneen dafa war a dem sañ ci feneen keneen dem sañ ci feneen mu gën a yaatu ndax ñëpp bu ñu rëkkasee ci benn kër goo xam ne ay 50 mètres la woon léegi ñi ko séq di boroomi mbooloo foog bu ñu bëggee yaata foog ñu tasaaroo bi faydu bi ñëwee nag laaj loolu euh, ak njàngale mi nga xam ne moom la bàyyi def ak bëgg a bay tool yi mu dem Kossy nag toog fa di jàngale di yare di joxe itam marifatu billah ñii ma lay wax nii nga xam danaa ko wax si ci kanamam parce que képp ku wax ak ku wax ci nit ku toll ni Baye ci num juddoo ak ci ay jikkoom su fekkee li ma xam ci siira nabawi la doo mën a ñàkk tudd saabaam yi doo mën a ñàkk tudd ay tanaqulaatam ay jaar-jaaram ay man-manam ay comme yu baax yaakaar naa doo ko mën a ñàkk tudd ba tax na ci loolu laay waxee ne seriñ Sëriñ Bañes moom moo wax ñuy dégg ndax moo ñu doon jàngal te nit ku nekk kam jàngee war na caa mën a dégg yu muy nettali yoo xam ne sax bokkul ci dërs bi ndax nit soo koy yar bés bu ne ngeen toog ngay wax loo xam ne dangaa bëgg mu góor góorgóorlu bëgg mu jàng bëgg mu nekk nit ku jub foog ngay nekk li jaar-jaar yi nga xam ne démb ci ngeen jaaroon bàyyi nee na moom Cheikh Sëriñ Bañes nee na bàyyi daana jàngale buñ jullee an tusubaa rek mu lal dërs bi te borom xaluwa yu mag yi ñi nga xam ne tey jàngal na leen ba seen xaluwa kowe ñoom Cheikh Sëriñ Bañes booba xàgg nañ ci xaluwa yu mag dañ daan yóbbuwaale ay sondeel pour bu jënt bi soxee ñu taal ko te da ci xamee ne bon ku toog tusubaar di jàngale ba jënt bi su ngay taal sondeel te tarixut kat muqaddam tarixa tijaan la dafay wirdu suba ngoon te itam dana julli ci jàkka ji waxtu yu juróom te dana wasifa dana def si sikkat saajuma ci mbooloo te su dërs bu pariwut ba jënt bi so danañ ko mottali ci guddi gi te bu subaa itam daf ko cay defaat te du ko pere nag li nga xam ne moom ci wàlli boppam la ay waqafam maanaam ay subonam muy jëflanteeg waa këram naka lay jëflanteeg téere yi muy wëleef nekk itam baykat boo xam ne comme sëriñ daar la sa fekkee xam nga sëriñ daar bi may wax mooy ko nekk ca tool ya nekk ci kër gi samp njël amee ay taalibe defar sa kër taalibe yi defar seen néeg ci kanam nga defar sa jàkka di leen romb di julli ji bu dër si yotee ñu toog jàng àllarba ak ma suñ xëyee ñu dem sa tool di bay nga top leen ba cënt bi sopp loolu mooy sëriñ daara ci nañ ko am waxe bu njëkk booba nag ci bàyyi turu sëriñ daara xen xoon na ko ak lim nekk nekk cheikh murabbi xen xoon na sëriñ daara ndax da doon jàngale ci loolu danaa leen wax ne moo jàngal Cheikh Sëriñ Mbaye ci temps boobu duut ne dama koy tudd parce que daf maa gën a jege dama koy tudd bi saraxane mooy ki njëkk a gëm baay moo njëkk a nekk itam taalibam buy jàngee ci moom kon nag laaj na ko xam-xamu zaahir laaj na ko xam-xamu baatin te loolu baay mi moom yëf yi moo ko seede boo demee ba ca mujj ak euh, dund ak Seex Sëriñ Baay Ñas ba mu di dem marché bi ko bàyyi doon def dégg ngeen mu bind ci ne Abubakarin Fataaya wa rasa sahbi kooku bàyyi moo ko waxal boppam te it moo njëkk a nekk taalibeem loolu lu wóor la àddina bi nga xam ne képp kuy wax ci taarixu baay te amee ñaari yëf doo mën a ñàkk wax ne Seex Sëriñ Baay Ñas mooy ki njëkk a gëm baay mooy xam ak maandu képp ku ko def rek dana la wóor ne mënoo koo def benn jéego boo waxee ci taarixu Baay te tuddoo Cheikh Sëriñ Baay loolu mustahil mën taam dafa mel ni rek ku bëgg a tudd taarixu yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te waxuloo Abubakar bëgg bëgg yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam danañ ci dem si incha allah ci la ko yàlla defalee loolu ba nga xam ne ay saabaam yépp turi saaba yonent yi lay xenu te ki ci jiitu itam mooy Abubakar kooku bëgg yàlla gi mu bëgg yàlla bëgg yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci la ko bu ñu daan bay ci tool yi ci kuus jamono boobu melut nii daf daan jafe ñuy bay ak soox-soox di konko jël gerte gi daf ko ci génn ngise takk ko ci sa ndigg muy tudd sonko jeede ñu doon bay bu jamono boobu yëpp nañ ko ñu jël konko di konko bu jeexee nga dem tibbiaat ko ñëw su ko defee bu àllarba jotee seen say daara tiim leen bu mbay bu nji jeexee ñu toog ñu jonkoon di bay ak di bay ak loxo ñoŋol yi nga xam ne karas lay doon lu jafe la ca jamono booba bokkut ak jamono bi nga xam ne ay machines yi ñoo xew loolu yëpp ci barkeeb ñooñu nga xam ne ñoo doon liggéey ngir yàlla démb nee benn bés dañ koo wax ne ko Cheikh Sëriñ Baye daf doon bay naaj yu tàng lool mu tànkam yi di futt ci suuf ndaxte ngi jonkon di toxu di bay biñ ko waxee Baye ke Sëriñ Daara ko Sëriñ Baye ñasey tànkam yaa ngi futt booba Bakari la ñuy wax Babacar mu ne daf ko rijjiwut ci suuf suko ko jaaroon ci suuf kon du du tànk-tànk bi doona fi jóg bon tànkam yi du booy noonu du du futu kooku xam nga yërëmul ñi jangal jàngal parce que daf leen a bëgg a teg ci yoon woo xam ne boo lëggee ñu mën a ku bëgg a yar nit te bëgg mu yar nit te bëgg kam yar yaru foog nga teg ko ci yoon woo xam yoon wu jub lay doon te doo faale dara loo xam ne ngeen seq gannaaw gi kon kooku ñooñu ñoo àndoon ak moom ci njëlbeen ñoom bay seexuma ture dana dikk ci leetal bi mu leen bind allah Cheikh Sëriñ Baye Niass maanaam na booba Babacar la ñuy wax eh, Baye sax doon na ko wax Bakari toujours Sëriñ Cheikh Omar ngeen xam mu nekkoon Ndofane gannaaw gi mu toxoon Serekunda ba fa la génne àddina daaw naka noona Sëriñ Ousmane Ndiaye eh, ki nga xam ne ñu bëri xam nañ ko mu dëkkoon Ndiayeen Sëriñ Baye Niass moom nga xam ne Baye daf ko daan wax Bakari eh, seen maam la woon Bakari tudd seen ji tudd Bakari Baye Cheikh Omar Touré Serigne Aliou Cissé Baye Ibra Fall juróom ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo njëkk ànd ak bàyyi ci muqaddam yu mag yi te dana feeñ ci lettre bi te duñ ci wax kenn lu mooy loo xam ne Baye ko waxal boppam ndaxte ñun yiñ jot rek lañ mën a nettali jëlee ko ci mag ñi nga xam ne démb dañ fee toogoon di wax ak ñun ci loolu benn bés sax Serigne Mahis mu ne dafay dem tool bàyyi ne ko ba kërikaay mu ñëw mu ne ko foo jëm mu ne damay dem tool mu ne ana tool ba nga bayoon daaw mu ne ko jeex na mu ne ana la nga jàngoon daaw mu ne ah mi ngi fi de mu ne ko damay font ah, dellu jàngi nee na dégg naa mu wax ne ci biir dërs bi boobu dërs baa ngi dund dërs buy dund ñu bari ci jàngkat yi xam nañ ko nga xam ne ñu am na ñu nekk ci sa gannaaw am na ñu nekk ci sa kanam am na ñu tollu ko yow loolu ni ñu daan jàngee majlis yi noonu la daan demee Cheikh Sëriñ Mbaye àgg ci benn téere mu ne bàyyi nañ ko tëb bàyyi na ko tëb lu tax mu ne mën naa ko mu ne ko ah jàngale ko ma dégg mu wax ko ba mu pare mu dégg ñu dal ko jàll ci ngay xamee ne boobu dërs bi dund na te bàyyi ci boppam jàngalekat piir la ndax mboolem ñi ma lay wax ni incha allah da dem ba gis ne amul kenn kenn ku mën a woote dugg nga ci seenam yar ak seenam njàngale lu mooy ba Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu mu ñi ma la wax ni ak ñeneen ñuy ñëw incha allah eh, gis nga téere bi ñuy wax kitaabu tasrif nga xam ne dañ koo bind ci tasrif bàyyi moo ko bind am na ku bindoon beneen téere bu doon jàng ci réew mi waaye comme kooku yàlla daf koo nattoo mu weddi Cheikh Ahmad Tidiane te bàyyi moom comme muqaddamu Tidiane la te am na xam-xam te nana nit koo xam ne dafa weddi Cheikh Ahmad Tidiane ngay jëflanteeg moom ci yow taalibe Tidiane bi loolu dafa xaram moom moo ko waxal boppam te xam ne li tax mu wax ko ku ci am looy wax ngay dem ci moom laaj ko loolu eh, mu bind benn téere tuddee ko kitaabu tasrif xeeti fin li yépp a soo ko jàngee da nga xam ne borom xam-xam moo ko jàng moo ko bind bam demé ba ca mujjëg téere ba mu ngi naan téré bi bind nañ ko ci benn bés sax sëriñ bañeex nee na benn bés la wax du tax mo ñu doon jàngal dañu nettali bañ jeexalee téere bi mu ne waaye ci genn wàll ak bés la ndaxte dañuy bay ñoom ci waar yi ka taal bi buy dem dimanche ak àllarba moom mu toog ci garab gi moom bàyyi amee bindukaayam ak kayitam bind kitaabu tasrif bam jeex ci benn bés bi te bon xam nga ne dafa xëyee këram ñëw ñu dem ci tool yi te ba ñuy wàccee bind ko ba mu pare te ba ngeen wala bés la <clears throat> loolu nag madadul Cheikh Ahmad ni bàyyi day waxee toujours bu fekkee dafay wàccee boppam def tawaadon dafay wax toujours loolu xam nga ne madadul xaj mi xat mi fayda Tidiane yi maanaam Ahmad Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu kon kooku mooy <clears throat> bàyyi mi nga xam ne wax naa la ne jàng na alxuraan ci ni ko nit ñi di jàngee defe naa doo fàtte jaar na fi nit ñi di jaar itam ci taxaan ci sonn ci wattu jigolo ci bay wax naa la loolu jàng na xam-xam itam ci façon boo xam ne bu metti la toog ci basan baayam di jàngale muy toog di dégloo xand ak ñeneen ñuy bokk di jàng dem na ba dëgër xand naag magam kii bay Mouhamadou kalifa Niass nangul na ko déggal na ko topp na ko jàngalekatam loxoon di ko liggéeyal xam naa ne moom gërëm na ko ndaxte su ko jotaay bi laa laajee léegi ñu wax ko ndax benn bés bay Khalifa ne na ko mereewuma la de ci booba jëf joo xam ne defal na ko ko bi ma agsee ci dem samp daaraam di jàngale ci cause yi nii la doon def ma ne amee benn néeg rong samp benn lal boo xam ne lali lali lali samp la xam nga lali samp yi ñuy wax lali jën rabb nga teg tekki jël teg tekki di jàngale tusubaar ba tëdd jot mu delluwaat ci ay jaamu yàllaam su te moo amee tërbiya bi te moo amee tariqa bi itam ci boppam te mi ngi samp kër amee ay soxna mi ngi amee ay doom di toggoo seeni coono te taalib bi yii ma lay wax moo leen yar te booba kenn demagu ci ñëpp ci moom la xajoon ba booba amul kenn kenn kum xeweegum pour ngay dem di sañ ci fenn moom rek moo bomboowoon lépp ba yàlla defee nag <clears throat> mu jàngal ñii ba nga xam ne yàlla def nañu am xam-xam ku mel ni Cheikh Serigne Baye ku mel ni bay Cheikh ma Touré ku mel ni Serigne Ousmane Ndiaye ku mel ni Cheikh Ibra Fall man nag su may tëddal toujours damay fàttaliku ni pays bi doon tëddalee démb ak ni mbind yi di rotee nii ma la ko waxee nii soo demee ci këyit lettre bi nga xam ne moom la Serigne Aliou bindu noonu lay toftalee muqaddam yi dafa wax naan Aboubacar Cheikh Omar Seydi Ousmane Ndiaye Seydi Aliou Cissé Ibra Fall Serigne Aliou mooy wax loolu moom mi nga xam ne mooy qadimul xadrati xadratil Ibrahima ya mooy kaatibul xadrati itam am na nag farq ci nit ñi ñuy fasale loolu buñ ci àggee xam nga baabul xadrati ak baabul faydati ak qadimul xadrati ak kaatibul xadrati kaatibul xadrati ak qadimul xadrati benn la sëriñ Aliou moo ko xenu baabul faydati ak baabul xadrati kooku Cheikh Sëriñ Baay kenn ku ci nekk tur wi nga xenu ñu baxee la ko rek kaatibul xadrati boo demee ci biir sëriñ Aliou yëpp yëpp da ngay gis qadimul xadrati da gis kaatibul xadrati baabul faydati xanaa baabu mooy fi nga xam ne ku dugg dugg ci néeg bi rek ci foofu ngay jaar yaakaar naa loolu mooy baabu loolu mooy ki nga xam ne moo ko njëkk def mooy Cheikh Sëriñ Baay Ñas mooy baabul xadrati itam pay bi Eh, bi bàyyi nekkee ci loolu di jàngale di leen yar yar bu rafet nee na li mu xamee ne docteur xam na xam-xam sax ba mu feebaree ba ñëw ko nag docteur daf ne ko xamul luy sa liggéey de luy sa métier waaye wax ci la bokk xam nga ne kuy jàngale tusubaar ba jant bi so nga dem ci jàkka ji julli wasifa def julli gexee dellu siwaat su alluwa yi nga nga waat ko dem nekk ci sa biir kër di wëlif di jaamu yàlla ala kulli xaalin kooku noppaloo benn jamono kooku nag bi mu xagsee foofu nag léegi tur waa ngi commencé soppeeku am na ñuy wax Sidi Sidi Ibrahima boobu am na ñu bari loolu lañ ko doon wax waaye Sayyidu jooju ñu di ko doon wax nga xam ne léegi mu ngi mel ni darajaam mi ngi bëgg a romb barxaam mu jaradu barxaam ñu bari ci turandoom yi danga nga dégg ñu leen wax Sayyidu ci jamono boobu turandoor yi boo leen gisee rek ci ngay gisee xéega xéeganu bàyyi barxaam yaa ngi ci bëri na man mi baraam lañ ma tuddee booba njël bi la 35 ci laa bon barxaam yi ñoo jiit woon gannaaw gi teg nañ ci sayidi yi gannaaw gi teg nañ ci eh, baay bi comme Malle Thiam tuddee Malle ñu bari ñu ngi naan baay am nañ su am xam ne ñoo xam ne Ibra lañ leen tuddee ca jamono boobu boobu loolu lañ laan daan wax dem nañ ba nga xam ne yëf yi romb na loolu ñu di ko ñu di leen ñu di wax Cheikh Ibrahim dem nañ sax bi gën a Cheikh Ibrahim Baye Niass yi moo gën bëri ci jamono bii ñu toll ca xam nga tuddul Baye Niass waaye tur woowu dafa mujj xuyu ba nga xam ne dañuy bàyyi baraam bi bàyyi nañ saydi ji léegi ndax romb na ko te alaaji ibrahima dafa diis du lu ni mën di xooxee nit léegi ñu bàyyee ci baraam jëm ci saydi jëm ci hibra dem nañ ci euh, cheikh ibrahim cheikh baay baay yooyu yépp ni dox bi doon demee noonu la war a noonu la ko defee wax ci loolu may wax ci diggante muqaddam yu mag yooyu nga xam ne nii lañu àndee nag bàyyi toog di ko liggéeyal di dem ci toolam yi di bay mu di leen topp ci parasolam di leen jàngal ci dërsëm di leen yar di ànd ak ñoom di jiite di toog ñuy bokk di wasifa di wër de suba ngoon yar muqaddam yi teg leen ci siraatal mustaqim amee faydu bi di ko doxalal boppam képp ku bëgg a jàdd yoon yi mu teg la ci yoon wa loolu mooy cosaanal faylu bi boo bëggee xam nag dëgg dëgg doxinu faylu bi ak ngirti euh, yi nga xam ne moom la bàyyi xam dangay ngay seet muqaddamam yu mag yi nga xam ne moo leen yaral boppam ci loxoom nga xam leen nga xam ne noonu la bàyyi doon doxee ni ñuy waxee ni ñuy soloo ni ñuy defee na ñuy jëflante loolu rek rek rek rek moo firi dund bàyyi ak nekkinu bàyyi lépp loo gis nag gannaaw ñooñu xamal ne dañ koo sos te incha allah dañ la wax loo xam ne ci loolu la ñuy sukkandiku benn bés yi dafa bind ne dafa bàyyi ko wax mu ne bàyyi daf ci benn jotaay mbokk toog di waxtaan moom Serigne Aliou mooy bindkat bi waaye bi muy bind dafa njëkk ne ñu teewee jotaay bi mooy Aboubacarine mooy Cheikh Serigne Baye ak Cheikh Omar Cheikh Omar Touré moom ci tur yooyu lay ak Seydi Ousmane Seydi Ousmane Ndiaye mu ne ak kii bind xibaar bi di Aliou Cissé ak eh, ak Seydi Ibra Fall muy juróom ñi beneen bàyyi xooxee ñi toog ne na bàyyi dafa ne tëkk ba mu yàgg mu ne ndax gis ngeen lijaasa yi ma leen bindal li ma leen yónnee ñu ne ko waaw mu ne am ngeen loo xam ne ku dut yéen amu ko maanaam lu jafe la ci tariqati yaan xam ngeen ci tariqati yaan boo xam ne lu jafe xam la te ñu néew ñoo ko xam sama mbind mii nag seede la ci yéen yéen itam kenn ku nekk seede la ci morom ma te bàyyi teg ci ne lu bari ci nit ñi te yàlla yox de ñu ngi feeñal maanaa ci seen bopp ne am nañ ndigalal litlaax litlaax mooy kuñ tënkut ci dara su xëyee rek lu ko neex lay def fu ko neex lay dem nu ko neex lay defee am na boy gu mat sëkk bàyyi ne am na ñuy feeñal seen bopp ci loolu ci amuñ sax mu xayat gu wér mu xayat gu wér mooy amoo sax ku la jox ndigal te ndigal la wér waaye nee na la soo demee xemal fii xemal fii xemal fii loolu soo xamuñ ko te ñu ngi xoote ne am nañ li laax bon nag dama bëgg ngay jël waxi baay jooju ci jamono boobu mu ko waxee seet ba xam ba mu koy wax la xoon wala moom daf doon wax lu ko yàlla wante ak siy gutoon ba xam fii la tolloon lépp nit ko xoote ne man am naa lit laax di defee nu ko neexee te baay mu ne amul sax mu xayat gu wér mu xayat mooy kuñ tënk ci dara ne ko xemal fii defal lii lu wér sax amu ko ca mu ne loolu moo tax njariñ li néew waaye su fekkoon ne ndigal am na jëlee ci diw jëlee ci diw ba ci Cheikh Matiyaan kon mu gën a yaatu gën a baax ci tariqa bi waaye bàyyi tekki nag ne danañ rafet ci ñoom njott ndax yaakaar nañ ne ñi mu ñëw sotal Cheikh rek day anhu waaye ak lu mën a xew dem na ba ci mu ak wax ji mu ne leen yéen juróom ñii keneen nekku fi ku dul yéen lay saxu illa antum waaw lu koy arab maanaam loolu jumla arab la ñëpp xam laysa naa ila antum amut ku nekk fii lu mooy yéen juróom ñii mu teg ci di lee coow li bëri na di lee pexe yi bari na lu mooy yéen ñii nekku fi képp ku bëgg a xéwénal dana roy ci yéen baay moo waxal boppam loolu kon shahaada baay boobu mu dajale muqaddamam yii yar leen ci majlisam ñu jàng xam-xam mu yar leen ci tarbiyaam yar leen ci tariixaam ba kenn ku nekk ci ñoom bu fekkee xam nga kenn ci ñoom dund nga ak moom may naa la sa xel nga xebal sa xel mi ci ñoom fàttaliku dundam ndax kenn ci ñoom mus na am semaine boo xam ne amul ngant te julli yuut ci jàkka ja mbaa toogut ci jotaay wasifa jàkka na doo ko gis ci ñoom ci juróom yi ma la wax Cheikh Serigne Baye Niass muy Aboubacarine di Cheikh ma Touré di Serigne Ousmane Ndiaye di Serigne Aliou Cissé di Serigne Ibra Fall amul benn nit bu mën a wax ne man naa mën naa mas naa leen a gis ñu sol mbubb yu jotut maanaam mbubb yu rafle mas naa leen a gis ñu amee xet gu naqari mas naa leen a gis seen bopp sëq ba nga xam ne kenn mënta jëflante ak ñoom mas naa leen a gis ci jamono amuy ngant julli ji wuñ ca jàkka ja toog naa ak ñoom wasifa jot te amuñ ngant mu wóor na ma ne demuñ ci wasifa wala secrétaire yu ma sax toog naa ci seen place ñu jëw fa nit mbaa ñu wax fa nit lu bon gis naa leen ñuy dimbalante ci noone wala ñuy ànd ak kuy noonoo gis naa leen ñuy def loo xam ne wóor na ma ne baaxul bàyyi daaw ko defee noonu ñaan naa mbooleem xaddina bi ku xam kenn ci ñu nga wax ma ne man de gis naa kenn ci ñoom mu def kenn ci yii te wax ma fa nga ko defee su boobaa man mboolem lu ma jëlee woon ci tariqa tijaan ak mbooleem lu ma jëlee woon ci Cheikh Ibrahim dama koy jël teg ko fële te xam naa ne ba lépp njuumte lay doon parce que mosuma koo gis ci Cheikh Ibrahim ma nekkatoon te bàyyi daf na leen yéen juróom ñii kenn ku nekk ci yéen seede si moroom ma la jox naa leen ndigal lu mat loo xam ne amul benn frontière amul fenn fu ma leen xemale ndigal li nga xam ne sax lépp laax mënu ko jël yéen jox naa leen ci ndigal yéen juróom ñii teg ci ne kenn ku nekk ci yéen nag su ko yàlla ne ñëwal dugg aljanna te moroom ma du ca dugg bu mu dugg man mii itam di seen sëriñ man Ibrahima su ma yàlla ne woon duggal aljanna te kenn ci yéen du dugg du ma dugg waaye moo joxe garanti boobu ci juróom yi kon nag li ma bëgg ñu xam mooy su fekkee dañoo bëgg pay bi tegu ci siraatal mustaqim nga xam ne dafay jub te du doxee benn tànk te du jàng te du am dara dara dara dara lu ko bëgg di du wala noon di ko du muy dëgg bàyyi daf na ku bëgg a xéwénal na nga roy ci ñii bàyyi wax loolu yow nag su fekkee yaa moom sa bopp yaay defal sa bopp defal lu la neex maa ngi fàttaliku benn jumla boo Alaaji Abdoulaye Niass mii waxoon Ibrahima kalifa ci benn siyaare mu ne lu nit bëgg a def def ko waaye bul ko askan bàyyi tamaan mën ngaa def sa yëfu bopp nii laay def naa laay def lii laay wax laa laay wax waaye nag nii laay def nii laay wax nii laay def waaye nii la bàyyi doon defee nii la bàyyi doon wax te duwu ko loolu moom tooñ yu mat sëkk la te ñëw ku ko def da nga xam ne yow da nga doon tooñ te dana la wóor ne bàyyi mii risaalaam fi mu ko teg ci siraatal mustaqim la ko teg ci dëgg gu wér ci jub ci juble ci sell ci tegu ca yoon wa ba képp koo xam ne bëgg nga cee dugal loo xam ne bokku ci te bëgg marché bu xoob moo la ci dugal amul benn werante ne bés dina ñëw nga xam ne dugaloon nga ci fii loo xam ne bokku ci loolu nag maa ngi koy wax que koo xam ne dafa sës rëkk ci mag ñi jàngee ci ñoom gis ci ñoom seen dund ba keroog ba ñuy dem mu tàggoog ñoom ci façon boobu ñu jox ko kóllëre gisut dara dara dara lo xamne ne xuute ci ko yonente yàlla muhammad sallallahu alaihi wasallam gisut gisul dara loo xam ne ñu ñooñu daanañ ko def mu wuuteeg li Cheikh Matiyaan daan def radiallahu anhu kon suñ toge ba legi nga di ci gis lo xamne ku du taalibe man na ca méré bay mba mu bañé ko ca ma ngi sédel halam bi ne kookaa ko ca def waye bay mom defu dara lo xamne ne wuute sunu si yonente muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam fépp fu mas a bindee lettre dem len ci lettre mi passé won lu muy njëkk wax moy maa ngi leen di dénk tey dénk sama bopp ragal yàlla ci lu feey ak ci lu nëbb ci tey ci ëllëg lettre bu bàyyi mësa bind loolu la ci wax maa ngi leen di dénk di dénk sama bopp ragal yàlla ci lu feeñ ci lu nëbb nee na moom dañ na ci képp koo xam ne da ngay def bokkaale da ngay def mooy yàlla te mu a yow yàlla seedal na man daj naa ci loolu ke bàyyi wax naa la ne nit kin domoom di doomi Alaaji Abdoulaye astu jànq jaar fi góor ñi jaar xale yi jaar ba nekk mag jàng bind téere dem na ci loolu yare ba ci kóosi xanaa da gis ku nekk ci daara yar ay taalibe dem ba mu yàgg taalibe samp kër fañ jaar wax la ko dara nekku ci yaakaar naa bi taalibe yi bëree barkeb jaamu yàlla gi dikk maqaama bi du dolleeku ñi sës ci moom te bëgguñ lu may jëm yàlla ji Ibrahima radiyallahu anhu bëgguñ lu may risaalaam bi tegu ca yoon wa te bu ko dara yàq bëgguñ lu may moom mu xam noflaayal tey ak njëriñal ëllëg ñoom ku mel ni Cheikh Tremes moom moo wax te loolu daf ko bind te ñu bare nga koy gis dafa wax bàyyi ne ko fi ne nii ñu toll yàlla rombale na la defar benn tool taalib bi jonkoon ca di bay nga tiim leen ñu di la liggéeyal léegi li ma ci xam mooy dama bëgg nga tasaare taalib yi comme yàlla def na jàngal nga leen bañ dëgër ñoom ñëpp kenn ku ci ne mën naa jàngale tasaare leen booba moom mu ngi fi booba sër yàlla fi nii booba bay ngi fi booba suñu man njaay boobu suñu rafaal seex sëriñ wax na ne yàlla xam na ne bi ma koy wax su ma xamoon ne man la ñuy njëkk a génnee sax donc du ma ko wax ko ne moom booba def ne ko kaay dem laamaram fa la njëkk dem toog fa di fa bayal bàyyi tool tool boobu ñu bari yëg nañ ko tooli bàyyi dem na ba àgg ci tool boobu ci laa gannaaw gi yóbbu nañ tool kër ma kanji yóbbu nañ tool ngeer waxuma nin toftaloo ne damay wax ni tool yi xamee rek ndax man taalibi daal laa jàng mën naa wax ne nangam xam na nangam xam na nangam xam na waaye di jël détail ne tool bii moo njëkk bële loolu maanaam indi wu ma fi li ma fi indi mooy xam na tool laa laamaram taalib yi daanañ fa ñëw di ko ba bayal Cheikh Sëriñ Bañes jiite woon ko foofu amoon na tool ca kër ma kanji Ousmane Ndiaye nekkoon na fa Sëriñ Ousmane Ndiaye amoon na tool ca ngeer télé bi bu baax fa nekkoon ñu di ko wax sëñ Omar Lo def na tool yu bari daal bi ko sëñ Mbaye si waxee loolu nangu na ko ndax mbokk la waaye taalibe nag jëfandikoo mbokk gi taalibe nag gi la lay jëflante na nga fàttali ne sëriñ Mbaye si moom Alaaji Abdoulaye Niass moo ko jur waaye bi Alaaji Abdoulaye Niass dem dafa doggoone ay fukki at ak juróom yeeg lay am eh, mu ànd ak bàyyi ci jox ko léppam jàngee ci moom yaru ci moom nekk taalibe boo xam ne nag dafa koy déglu ci waxtu bu nekk waaye daf koy seetal itam ay masla waaye nangu loolu tasaare tool yi moom mu dem laamaram taxawal fa tool tool yi ma la wax noonu bàyyi nag des fi waxoon naa ko ci kër ma ci wér ci benn wax man taarix laay wax li may wax mooy dama koy jëlee ci ku wér te dama gëm ne loolu am na te waxuma ci tey ci démb laay wax Cheikh Saliou Mbaye moom moo wax ne moom moo wax bàyyi ne ko yóbbu ma man maanaam génne ma ma dem Cheikh Oumar Touré mi delloo ko seen dëkk Njaay Njaay mu dem kubbi fa daara sëñ Man Njaay yóbbu ko kër ma kanji mu ne ko sëriñ Aliou mii nag ba ko ci soron li ngay soxla yépp mu di ci taxawu man na ko parce que boobu moom jaxasoo ak sëriñ Aliou sëriñ Aliou ñëw na ci kër Alaaji Abdoulaye Niass waaye fekk na boobu wattu na alxuraan bi muy ñëw bi mu ñëwee itam ci ànd ak nekk ci loxo Alaaji Abdoulaye ci dénkaane boo xam ne ñu bëri jaar nañ ci loolu itteelu ma waaye li ma bëgg a itteel mooy mbaax gi ko yàlla baaxal fi mu ko jëlee loolu moo ma mu ñëw nekkoon ci loxol xalifa te boobu xalifa moo amee yëpp bi muy dikkat ci baay dem nañ tuuti ay at waaye ñëw na ci ak cërab yàlla boo xam ne yàllaa ko ko sedd yàlla xam na ne sëriñ Aliou li muy lii yàlla di ko ko joxee bàyyi mën na ko te yàllaa ko formé lu tax xittey bàyyi ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci la ko joxee saxaaba bu tudd Aboubacar ci la ko joxee saxaaba bu tudd Omar muy Cheikh Omar ci la ko joxe saabu bu tudd Ousmane muy Souleymane Ndiaye ci la ko joxe saabu bu tudd Aliou loolu bàyyi bëgg gi mu bëgg yàlla ci la ko yàlla cëralee loolu dañuy dem sax ba gis ci cër yooyu ne dem na ba xàgg ci Aliou moomu di saabaam di taalibam di muqaddamam yàlla ci kattanam moom yàlla may na bàyyi doom bu ñuy wax Fatimatu Zahra mu di ko tuddee Zahra di ci fàttali ko Zahraam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu am ak moom doom ju góor loolu yëpp bëgg gi mu bëgg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu di ci xarfaan lu ba tey di ko tuddee xasan mi nga xam ne doomi aliyu la loolu bëgg gi yàlla bi bàyyi bëgg yàlla bëgg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci la ko cëralee façon yi cër yooyu nga xam ne tibqal asli lay doon mu dëppoog cosaan la démb ba boo ko gisee mel ni luñ préparé la woon démb fàllan luñ préparé lu ndax atteb yàlla la waaye itam mi ngi jaar ci mbëggeel ak waa ji ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu ñëpp a ngi jënoog moom fi mu ne di moo nekkoon Medina yéen ñëpp nga xam nga xam ko xam ne bàyyi tagg na ko soxna Ahmadou Thiam ak yabbusul xelma nga xam ne dafay jàngale foofu xam-xam am na nag ñoo àndoon ak moom ci départ ñii ma la wax nii ñii nga xam ne ñoo amee mbóot mi amee maqaama yi moom ci kattanal yàlla moo leen ko jox kenn du ci werante man joxuma leen ko Demba joxu leen ko Waali joxu leen ko yàllaa leen ko jox ci barkeb seen sëriñ Alaaji Ibrahima Ñas moo leen wax ak ñoom moo leen tëbb moo leen yar moo leen jox liñ xam moo leen teg ci place yi nekk yoonu keneen nekku ca lenn rek la nit fi mu nekk bàyyi yaa def li li nga def jub na wala yow li nga def jubul loolu rek moo fi am waaye moom moo leen jox loolu bi loolu amee nag comme ni moo leen yar ci façon bi yar bi baax na yéen ñëpp xam ngeen résultat yi ni demee kon ñooñu dinañ sant yàlla ci ñoom waaye maa ngi wax dara loo xam ne ci ñii laa koy aj bàyyi na nag ku bëgg xéwénal